bis bi teer si fii ci àll bi yàlla ci def sutura ba kenn ñàkku ci bakkanam muy bis bu mag yaboon doon moytu moroomu bisam pneu bi éclaté mu daldi këppu premier ministre nag doon jóge Saint-Louis di utali Dakar daldi ci yem. mu wax dégg chauffeur bi ma ne ko xam nga lii pneu bi lii dootul pneu lii warul daw Sénégal warul daw fenn ci àdduna. ndax pneu bi dem na ba amatul rayure amul adhérence mënoo ci freiner mu taxaw yi koo xool xam ni du pneu ñaari yëpp sax d'ailleurs yii sax tane na mais yi moom xoolal différence su bi ak pneu bi kon ñu waruloon daw Sénégal te problème bi muy posé mooy problème visite technique yi ak problème contrôle routier bi visite technique yi ak contrôle routier bi te loolu il faut ñu jóg si ndax tant que jóguñu si moom boo amee oto bu màgget pëne yi gën laa màggatati pëne yi warul daw ci oto boo xam ne kenn xamul ñaata tonne lay pesé il faut ñu jóg si. pneu yu bon oto yu màgget tali bu tooy kaaraange di desandi ci tali bi njiitu gouvernement bi di ñaax ñëpp. léeg-léeg nag suñu waxee ñu ne dañoo bëgg yàq suñu liggéey wala dañoo bëgg a waaye bëgg liggéey warul tax ñu ñu exposé dundu jàmbur dundu nit ñi tam à commencer dundu yéen ñii di dawal. Hmm. xam nga yow lu ne mënon la ci dal yow mi ci nekk apprenti bi nga yor waxuma laa nag client yi fay seen xaalis euh, fas yéene woon jóge bërëb dem bërëb mais lii moom ñun ñëpp pour transporteur yëpp ak syndicat transport yëpp war nañoo dàkkoon ni lii du pono bu war a daw ci réew mi kon yu mel nii mooy facteur aggravant yi mooy gën a justifier yenn accident yi wala mu gën koo garaawal premier ministre waxtaan si lu yaatu ak chauffeur bi waaye bu weesoo moom ay kàddoom ñu bari la ko jagleel. président de la république ñaari yoon ci conseil des ministres ak conseil national de sécurité euh, yëkkati na problème mu transport bi ak euh, contrôle technique bi pneu yeeg frein yeeg ñoom seen te lii firndeel na ko yàlla dafa def ñu tombe ci rek waaye lii wane na ko ngeen gën a góorgóorlu ci loolu ñi moom oto yi balaa ñu leen koy jox lii war nañ ko régler xanaa dinañ dem ci ay réglementation yo xamné comme auto yi màgget na ba paré ñu ñu def au moins réglementation boo xamné day régler problème pneu yi ak visite technique di courage ñaan yalla mu baña mu bañ la amin ay ngeen di waxtaan seen kilifa ndax yu melni waru ñu leen bay ngeen di daw ci ak pneu yu melni ñu nekk yi nawet ba tax ku ne war a sàmmonteeg sartu tali bi naka la kaddu yi jip ñu tombe waat ci beneen bis boo xam ne moom it daa wàcc tali bi